dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. bésu passation de service bi dafa doon lu extraordinaire cest dire les gens en prison. d'un moment à l'autre ils se retrouvent mm-hmm. en liberté et d'un moment à l'autre ils se retrouvent à la présidence de la république. Mm-hmm. day doon lu yéeme lu nga xam ne Sénégal yëpp dañ ciy jàngate suñu borom rek a mën. Mm-hmm. man nag ma am ci mbégte bu baax. parce que dañ ci amoon yàqin ni lii lay demee lii lay amee parce que defe naa yàgg naa toog ci ay plateau di ko wax xëy na mënu ma woon joxe date vingt cinq bi xawoon na flou président Ousmane Sonko nekk président aussi xawoon na flou mooy ba ma duggee ca palais ba fekk dama ko laajte ñu ni moom ma nga ca biir di nelaw donc ça veut dire beaucoup de choses doo ko mën a tekki mais ça veut dire tout simplement que dina ñëw dina ñëw luy am la man wax na saa wax Ousmane waxoon naa ko lii luy am la léegi nag am na nekk na lu nga xam ni ñëpp ñu koy rafetlu bon euh, président Macky Sall waxoon naa Mansour fay sama xarit ni que dina génn palais bi di dem waaw dina génn pale bi di dem génn na nag dem na bon euh, man bu doon man la maa nekk place am dinaa baalu ak sénégalais yi ndax kat am na yu bari yu fi jot am yu nga xam ni boroom kër sax bu ñu la dénkee kër maam yaa leen war a dundal naam sa devoir la waaye boo leen dundalee ba mu dem ba à un certain moment euh, di nga leen jéggalu ndax kat rëcc rëcc du mën a ñàkk te réew dafa doon lu doy waar responsabilité la bu fekkee ni dénk lañ ko lépp lu nga xam ne am na ci peuple bi wala ci euh, njombe wala dara te am na yu fi jot a am yooyu rek waroon na tax mu baale bul le peuple sénégalais loolu ci mbir mi la bokk ba pare nag munoon na toog saafonteeg peuple sénégalais yi ba ci kanam mu sogaa dem euh, dem bi tamit bugguma mu nekk dem bu nga xam ne dem bu day occupé ay poste feneen la parce que euh, souvent damay wax l'apprentissage par l'échec moom il a eu beaucoup de réussites et beaucoup yooyu war na ko permettre mu dem un conseiller euh, même maa ngi ko koy digal même bu fekkee ne dafa dem feneen à chaque fois que nous avons besoin de lui euh, na na na na na wax ak nit ñi loolu c'est extrêmement important dem bi nag noonu la mënoon demee xëy na moom it daf ko bett euh, am na nag ñu mu bettul ñi am yàqin dëgg ñi am sawaay seetlu dëgg ñi xam l'islam dëgg ñi xam mbir mi ni muy doxee dëgg xamoon nañ ni mbir mi fii rek la mën a mujjee lu mujjee feneen. donc ñu koy ñaanal waaye nag di ñaan yàlla aussi ñu teg ay jéego yu nga xam ni li fi jot am. Mm-hmm. avant muy dem. Mm-hmm. loolu yëpp bañati fi am. Mm-hmm. kenn bañati ko xalaat. yooyu nag il faut ñu teg ay jéego ci dans ce sens. am na ñu ma rencontré ci ñi nga xam ni ñu ngi nekk ci gouvernement bi. Euh, am na jàngat bu moo ci def. xëy na am na lu bari lu nga xam ni xaw na sooxee lu nga xam ni mënoon na bañ demee noonu. parce que am na ku ma wax ni budget trois mois lañ ko lekk alors que. budget boobu mu noon un an la ñu prévoir yooyu yëpp euh, euh, situation bi ñu nekk audit bi ñu war a def mooy état des lieux bi ñu war a def dinañu leeral ci lu bari loolu na xëy na euh, bokk na ci lu tax mu précité wu dem wala waaye même bu dee loolu la nga xam ne ah on vit un village planétaire lépp lu nit def loo warul def ëllëg di nga répondre devant ça mmh. loolu c'est extrêmement important parce que aussi dinañ leer leeral leerlu parce que loolu boo ko defee rek dina tax sénégalais yi aussi devoir bi ñu am envers ñoom. Mm. mooy xamal leen di xew état des lieux publier ko wax ni ah lii moo fi nekkoon lii moo fi nekkoon nii la ñu doxale mm. bu ko defee rectificatif bu mu ñëwee comparaison boobu mooy mën a tax ñu xam jéego yan lañ ci def ñun. Mm-hmm. am na solo kon ñu la déggee jamono ji mën nañ njort Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay am jafe-jafe ci lu ñeel wàllu koppar ci li nga xam ne moom mooy seen tàmbalik mandat. oui effectivement bu fekkee ni. Euh, amuñu ay rentrée d'argent yu jóge extérieur mmh. tout est possible mmh. parce que y a l'alternance mmh. alternance bi dafay attirer les investisseurs mois je crois que bu fekkee ni ñooñu ñëwuñu wax dëgg yàlla dinañ am jafe-jafe c'est sûr et certain parce que nag euh, man ki ma toogal mu ni ma trois mois la ñu nekk budget alors que douze mois la woon lool tiital na ma parce que dafa war a liggéey xam nga loolu yëpp problème la ci réew mu nga xam ne véritablement dafa waroon am un contrôle orthodoxie am ay euh, mécanisme yu nga xam ni warut a mën a nekk loolu war a mën a euh, ñu mën a consommer sax six mois alors que euh, pour six mois ñu consommer en trois mois yooyu yëpp manque de contrôle systématique la manque de sérieux la de la part des gens qui étaient là il va falloir le dire du lu nga xam ne dañ war a nëbb dëgg bu amee da ko war a wax nen boo ko gisee naa nen kon bu mel ni sabotage bi doon wax ne président Macky Sall moom la nekkee woon laata mu fiy jógee moom moo nekk di feeñ nii mais ce qui est sûr et gis nga éliminer nañu ay nomination yu nga xam ne véritablement c'était abusive mm-hmm. yàgg naa wax ni dañu war a libérer les affaires courantes mm-hmm. yàgg naa wax ni dañu war a taxaw taxawaay bu nga xam ni véritablement day indi orthodoxie ak fonk ki nga xam ne moo lay remplacer mm-hmm. waroon nañu sóoraale ni véritablement euh, moi je me rappelle en 2000 Abdou Diouf bi mu ñëwee Ablaye Wade avait trouvé les caisses pleines pourquoi parce que dafa am orthodoxie yaa ngi dugg ci at mi nga xam ne wóor na la ni at mi ngay dugg kat euh, la donc war nga nit ñi ñu def rationalisation des dépenses ba bu ñu ñëwee xam ni kat kii ma remplacé wax dëgg yàlla euh, ki fi nekkoon liggéey na loolu c'est extrêmement important surtout sur le plan financier mm. mais nag yaakaar naa ni avec euh, euh, le sérieux bi ma xam mm-hmm. ci ñi nga xam ni jiite nañu mm-hmm. loolu dafay indi investisseurs yi bu ñu xamee ni ñi jiite jub nañu mm-hmm. loolu dafay tax ñu sawar a indi seen alal sawar ka investir fii te yaakaar naa ni ce sera le cas donc loolu mooy daal suñu xel waaye bu dul loolu am na sabotage bu bëri am na fi. reddition des comptes bi ñu nekk di wax ñi nga xam ne tuddoon nañ leen ci ay scandale ay milliards et milliards yoo xam ne tudd nañ ko ne luubal nañu ko ndax loolu dañ ci gaaw gaaw teg ay jéego ngir mën koo récupérer wala boog ñu convoqué ñi nga xam ne ñoom lañ cay tudd. waaw reddition des comptes boobu euh, ñu bare yàkkamti nañ ko. Mhm. maa ngi waxtaan ak ay sénégalais yu bëri yu nga xam ne ñu ngi yàkkamti. ñu mhm. élucider ay affaires yu nga xam ne notamment yu luubal yu lu fi amoon. Mhm. loolu nag. Euh, li tax ma xam ne duñu ko gaaw a précipité mooy bëgguñu mu niru revanche wala mu néru fayante wala mu niru chasse aux sorcières mhm. dañuy bàyyi justice installé wu confortablement mhm. bu ko defee justice def liggéeyam mhm. bu ko defee rapport rapports comme ni ko am na ko wax bërki dem rapport OFNAC yi nga xam ni wala euh, euh, organes yi nga xam ne dañu épinglé woon ku mel noonu Mame Mbaye Niang muy mm-hmm. yooyu rapport yooyu war nañ ko mën a teg tout de suite sur la table du premier ministre mm-hmm. loolu c'est une demande sociale mm-hmm. nañu indi rapport yooyu teg sur la table du premier ministre ñu jox ko spécialiste ñu xool ko bu ko defee ñooñu bañ a nekk di ndaataa talax ak li ñuy def yëpp mais Mame Mbaye Niang fan yi dañuy dégg ñu naan moom sax génn di ko wax ne dañ ko setal bu mu set wecc non seetal ba mu set ne kan moo nekk OFNAC actuellement. Mm-hmm. moi je crois qu'il y a des changements qu'on opérer. Mm-hmm. pour clarifier les choses. Mm-hmm. loolu yëpp je crois que premier ministre mi ngi si liggéey. Euh, gouvernement bi dinañ ci liggéey bu ñu euh, surtout le ministre de la justice. OFNAC aussi dinañ ko xool. parce que euh, du da nga fa nekk mën a la neex wala changer dara. am na lu nga xam ne am na ay rapport yu ñu épinglé Mame Mbaye Niang notamment mu leer bind ci mu am ay un rapport qu'il a ñu ne directement moom moo sàcc xaaj bi parce que rapport mën na la épingler waaye am ñu bëri ñu dugg ay dajeeg saajeeg yeneen yu bëri ñu ci dugg wala am fu bëri waaye xaalis daal dem na hmm. li dem na wax dëgg yàlla dinañ ko leeral waxuñu moo jël waxuñu jëlul hmm. loolu mooy maanute waaye tey dinañ ko leeral ba Sénégal yëpp xam loolu parce ba pare ñu xam ni euh, kenn setagul hmm. déjà setagoo munoo set bu fekkee ni da nga doon gérer un ministère mois je crois que les gens ont signé sous réserve tey jii sama direction d'école bi bu ma dee dem kii nga xam ne moom la bi ma ñëwee dama signé sous réserve. Mhm. bu ko defee en attendant ñu contrôler audit boobu mën na dem un an. Mhm. donc loolu dafay leer naññi. moi je crois qu'il y plusieurs directions il y a plusieurs agences yu xam ni euh, bu ñu ñëwee dañ leen di auditer xool exactement mooy état des lieux. Mhm. xam nga loolu du soxal du dara mais c' est dans l' administration. administration noonu lay doxee. bu ko defee ñu xool c' est une chose normale un processus normal. waaye bu demee nag ba indi jiixi jaaxa yu xam ni gis nañ ko ci biir rapport ba. kooku kat dinañ ko xamal Sénégalais yëpp kat lii moo fi am ñooñu bu ñu leen waree woo dinañ leen woo laaj leen explication mm-hmm. comme la procédure normale mm-hmm. ñu fournir ay explication après ñu xool est-ce que c'est probant wala probant wul bu fekkee ni am na lu ñu leen war toppee comme ni ko Bassirou Diomaye Diakhar le président la République waxee mm-hmm. mooy ñu indil fexe ba ñu transiger indi li xam ni moom kat la ñu jëloon mhm. nga xam ni wax dëgg yàlla xëy na contexte baak environnement baak lu mu bàyyi baak la fa xewoon mhm. moo tax ñu def ko waaye bii yoon xam nañ réew mi changé nañu mhm. ñu ñëw nag indi loolu bu ko defee am lu ñu leen ci compal sax am lu ñu leen ci encouragé leen loolu mooy indi jàmm Sénégal képp ku deful lool xamal ni yaa ngi dugg ci lu nga xam ni bu ñu xasee ba engagé ay procédure dafay am fu muy àgg kenn du mën dellu ginnaaw. Hmm, am na solo mais yamul ci Mame Mbaye Niang ñu Ba ñu ngi naan mu ko jëlee Mamour Diallo déggoon nañ fi mbirum 94 milliards yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne déggoon nañ ko kon mu mel ni jéego yooyu mënul ñàkk jamono ji ñu toll nii pour mën a xam état des lieux pour mën a xam itam perspective yi nga xam ne moom ñuy daal di tekk lan nga jàpp ne ñoom ñooñu moo war a nekk seen i daan par rapport a justice ndax war na am yërmande bu ñu war a am ci ñoom ndax alalu réew mi lañ jëloon ci liñ moom lañ leen dénkoon bu dee am na lugal bu ñu ci def ndax war na am yërmande bu ñu am ci ñoom wala dañ war a jël mbir yi rek gaawantu ko euh, tegee leen de côté ngir na ñun dañuy liggéey l'essentiel lañ indiwaat koppar gi ndax war na mën a am ay daan yoo xam ne ci wàllum justice day tegu seen kaw ba sax ay am dugum prison di ci am. dafa am loo xam ni euh, du président la république du premier ministre du keneen mënu ko. Mm-hmm. yow mënuloo ñëw yow nga tooñ ma. Mm-hmm. ba pare président di ci am yërmande loolu mu nekk mhm. euh, lool du équité du justice mhm. justice ak équité mooy yow boo ma tooñee man mi nga tooñ euh, man maa la mën a baal sénégalais yi ku luubal xaalis sénégal sénégalais yëpp nga tooñ mhm. kooku benn nit amul maa xam ma taxaw di la baal wala dara sanction yi ñu war jël normalement dañ koy jël effectivement parce que ki fi sàcc ginaar mais dañ dem tëj ko mu am fa ay problème ki fi sàcc pitax même chose donc ku sàcc lu ëpp loolu nga xam dina causer ay préjudice yu nga xam dafa indi ay nit dee parce que hôpitaux yi taxaw waxuñu leen ay nit ñàkk seen bakkan ay nit euh, ñàkk laago ay nit euh, di wasin ci saret parce que amuñu infrastructure hospitalière ak yooyu mais loolu bu loo ko def ba pare nga ñëw nit baal la loolu mënul nekk c'est totalement impossible tel que je connais euh, mes collaborateurs ku mel na Bassirou Diomaye Xaar Faye Diakhar Faye son excellence ku mel na président Ousmane Sonko le premier ministre kooku dama ni ñooñu yi xamale leen ñu jël mbir mi bëgg lëmas wala ñu euh, leem-leemal wala ñu def dara li ñu mën a def rek mooy taxaw bàyyi kaak justice mhm. justice nag bu décidé mhm. lu mu décidé ñu def ko mhm. loolu mooy problème bi ci wàllum justice boobu loi d'amnistie président Macky Sall avant mu fi jógee euh, parax paraxee na ko moom ak ay député am bañ voté ko mu jàll alors que de deux mille vingt et un ba deux mille vingt quatre am ay ñaaw tef yu bëri yu fi am ay sénégalais yu ñu rey ñoo xam ne jëlee nañ ci ay laago ñenn ñi am ay jafe-jafe ci seen liggéey ci seen famille ak yeneen ak yeneen yu bëri yu doy waar yu yéeme xew ci réewum Sénégal ndax jàpp nga ne président Bassirou Diomaye Faye ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànk justice bi jamono ji comme ku ci mel ni Ousmane Diagne mi ñu ko dénk ndax dañoo war a xool naka la ñuy def ba loi boobu ñu jéem ko dindiwaat ngir mën a euh, teg li nga xam ne moom moo di yoon ku ci nekk rendre compte ci li nga xam ne moom nga def diggante boobu d' abord ñu ngi continuer di jaale ñi nga xam ne ñëpp maag ñàpp maag ñàkk nañ ci seen bakkan mm-hmm. Euh, ñi nga xam ni torture nañ leen ci lépp ñu ngi leen di massawu mm-hmm. ñi nga xam ni tëjoon nañ leen ci kaso injustement ñëpp ñu ngi leen di massawu mm-hmm. loolu ma wax léegi nag loolu yëpp buñ ko boolee mm-hmm. soo buggee indi loi d'amnistie faxas loolu yëpp day yomb trop parce que kan mooy nekk acteur amnistie bi ay nit des personnalités étatiques mais ñi ñu tooñ ñoom est-ce que d'accord nañ amnistie bi loolu moo tax ma ni loi d'amnistie ma position personnelle mooy dañ ko wa a jël teg ko fële. Uh-huh. dañ ko feeroon dañ ko war a défaire. Uh-huh. parce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye am na possibilité défaire cette loi là. Uh-huh. bu ko defee justice taxaw. ñam war a topp bu topp leen am na ñu yoroon ay mbolde di doon nit ñi ci mbedd mi. am na man ñu ma fekkoon nga xam ne dañ ma nguufaan dugal ma ci oto. pousse ma yóbbu ma fële heureusement qu'ils m'ont laissé. parce que xam nañu ki ñu jàpp peut-être wala am na lu leen tax ñu bàyyi Mhm. yooyu yëpp ay manque de respect yu nga xam ni kenn waru ko tolérer. Mhm. parce que buñ ko tolérer ëllëg ñeneen mun nañ ko def parce que croyant que loolu mooy yoon. Mhm. parce que mun def dara rek ni dañ lay baal après ñu baal la non non non loolu moi pas d'accord en tant que Birame Khoudia Lo. Euh, persona euh, personnel euh, perso la personne de munul baale loolu. maintenant je sais que ñi ma collaborateur aussi. loolu ma nekk si man moom moo nekk ci ñoom xam naa ni du ñu jël loi d'amnistie bi bàyyi ko ndax sax dang yëpp fii 2021 ba léegi dafa am lu ñu daj. Mm-hmm. Ousmane Sonko ci boppam am na lu mu daj lu mburu ci taal. Mm-hmm. Ousmane Sonko ci boppam mën na baale. Mm-hmm. waaye est-ce que Ousmane Sonko li mu baale Pape Abdoulaye Touré mën na ko baale. moom mi nga xam ne xaw na ci ñàkk bakkanam ma koy masaw fu ma toll dama koy xalaat ak ni ñu ko doon def nga xam ne bakkanam demoon na ba tegu ci xot gerte xot nga gis am ñu nga xam ne dañu am seen ay bodyguard yu nga xam dañuy dugg sax si bureau yi daf leen neex di dox ci dëkk bi di euh, harceler nit ñi di def di ko quoi xelu kenn dalul loolu bokkul dara ak li Diomaye fay war a liggéey Bassirou Diomaye Diakhar Faye day liggéey liggéeyam ànd ak gouvernement am di liggéey justice nekk fee di def yoonam di ko jëflante ak ñoom sans que Bassirou Diomaye Diakhar Faye wala kenn ci ñun influencé ci ñoom waaye yoon dafa war a def liggéeyam bu ko defee ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci digg bi mooy ñi ñu tooñ ñooñu mën a am satisfaction morale léegi nag état bi ci boppam amal na leen njukkal ndax l' état continuité léegi képp ku xam ne am na lu ñu la defoon bu ñu amee les possibilités te dinañ ko am incha allah dinañ la indemniser waxtaan ak yow dalal sa xel parce que état kat continuité AGT News